asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki Sénégal ñoo ngi leen di nuyu waaye tamit eh, ak fépp fu yàlla dogal audio bi man fa àgg ci réew mi ak bitim réew eh, rawatina bokki région de Thiès département de Tivaouane et la commune de Darou Khoudoss et Mboro di leen jëmm ji nga xam ni moo yor cachet bi di entreprise de génie civil travaux génie civil tout genre de métier mu wuyoo ci turu Abdoulaye Diouf oto bii la yor bi nga xamee ni ñëw na di nu saay saaye mu nekk AA 050 AA mooy immatricule oto immatricule oto bi jëmmam mooy kee mel ni golo ca biir oto ba di trian di saay saay moo tax ñu wooyee ko noonu di nit koo xam ni mérité wul sax euh, di wax ak kenn mu di ko wuyu ndax saay saay la. bu gor yi xëyee jóg di liggéey di wut luñ am moom mi ngi wut di lal ay pexe ngir nu mu leen mën a escroquer nu mu mën a yóbboo seen alal ci lu lundul xam dina booleeg di la jéem a takk dina booleek ay fen dina booleeg di waat ci ndeyam ba jooy dina booleeg di waat ci lépp loo xamante ni si nii rek yaakaar na bu ci waatee nga gëm ko te la may wax fekk naru ca dara lépp ay nar la lépp ay kàcc la Abdoulaye juuf mii yoreel nañu xaalis bu takku. te booba ba léegi def nañ ci moom ay plainte ci brigade gendarmerie bi ñu gën a jege euh, convoqué nañ ko plusieurs fois waaye amaguñu feedback ci moom heure bu ñu fa demee dañuy xamal ni ñu ngi koy woo nee na dina ñëw waaye duñ ko gis léegi nag ah, réew mi ñun ñëpp dañ ko bokk ñun ñëpp dañ ko moom tey euh, union fait la force ñuy sàkku ndimbal ci képp ku ah, audio bi est-ce ci moom mu partagé ko ngir saay-saay bi yoon mën koo teg loxo saay-saay bii yóbbu suñu alal ci lu ñu neexul ñu mën koo delloo siwaat ci suñuy loxo ndax ku mu doon yow di yow ndax bi mu fi ñëwee ay kàddu yu garanti la teg suñu loxo après caché entreprise am bii waaye après bu ñu ñëwalee ak ay nit di xam leen ni dafa séq ak ñoom ngoro ba jël ndaw sam muy wax ni daf koy bëgg foofa andil ñu ko jëkkati téléphone am paas ñu goro yooyee mu doon gorolem teel ndekete woo loolu yëpp ay dóor la ay nax la Euh, kon nag audio bi mu ngi nii ñu ci sàkku ndimbal képp kum est-ce que ci rek mu partagé ko ba saay-saay yu mel nii ñu dàq leen ci gox bi ak ci réew mi ak tund bi yëpp ndax xam leen ëpp na rawatina kii di ab Abdoulaye Diouf di saay-saay piir